gëtula programme spécial ci wàllu assainissement président Sall xamle lu ni mel ci ndajem conseil des ministres démb euh, ci wàllu ndimbal geeg taxawu nag euh, tàmbali na mu jëm ci koppar yi nga xamante ni ñu ngi ko baaxee ñu loru ci mbënd bi euh, ñaar fukki junni jàpp ñeent fukk ci ña des enveloppe boobee dina am ak yokkute ci fan yi nu dëgmal ministre Mansour Faye ni waxee mooy ministre bi ñu dénk wàllu développement communautaire démb la doon teewe kon xew wi jëm ci ndorteel ak googeeg taxawu nguur gu Sénégal jëm ci ñu ci waa mi gi Salif Sow ñooñu daanaka fukk yooyu ñu ngi ci ndox mi mbënd mi ren moo leen sonal Mansour Faye di jëwriñ gi ñu dénk développement communautaire moo ko xamle. mbir yi bu amee recensement day xaw a bu mat day xaw a jafe dañ ko tàmbali ñun gëm nañ ni mën na sax egg à l' nationale entre dix mille ak quinze mille familles sinistrées. koppar yi leen jagleel di Orange Money ba tàmbali nañ ko di tas xaalis ba ñetti milliards la jëwriñ gi nee koppar ya sax lim mën nañ CFA. président dafa génne enveloppe bu dix de francs CFA. enveloppe dix milliards de francs CFA boobu. mu ne sept milliards yi am na fu ñuy dugg. waaye yeneen ñetti milliards yi. day nekk accompagnement social. accompagnement boobu nag. cash transfert bi ci la bokk. maanaam jënd ay aussi produits phytosanitaires ci la bokk. mais aussi ay vivres ci lañ bokk. xëy na sax enveloppe trois milliards boobu mën na am. mu yokku parce que tout simplement bu fekkee maanaam les sinistrés bu leen enregistré ñu toll nen enveloppe dana ajusté wu pour mën a répondre à ce que le président wax pour ñu jàppale ko askan di fi nga xamante ni mooy tente yi ñu defar ngir dalal ñu ndoxu taw nangu seenub kër di sinistré yi fii ci diwaanu Kër Massar am na fi ñaar fukk ak juróomi njaboot yoo xamante ni ñu ngi ci bërëb yu nu mel bërëb yu nu mel tamit dinañ leen def ci réew mi que ñuy seen ñu mën a nangu ndox bi ci seen kër yi mën cee dellu saat te moom lay def mu neexee yoon wàllum ngàccum ndoxu taw yi la mu ngi wër ci gox bi la kër Massar ëpp na ñaari junne juróomi téeméeri njaboot yi nga xamante ni ndoxu taw yi ñoo leen fitnaan nangu seenu kër ëpp na ayu bés di ba ñu amalee plan Orsec ak léegi président Macky Sall moo joxe woon ndigal lii Salif Sow kër Massar ngir rajo Futur Media ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew a a